l'international sénégalais bii di wuyu ci turu Kalidou Koulibaly naam sax ñu bëri dañoo waxoon du jóge foofii ca Napoli waaye nag jamono ji dafa mel ni kat Kalidou Koulibaly bu ñu moytulee dara dootul joué foofii ci club italien boobu ñu naan euh, Napoli ndaxte ki nga xamante ni mooy euh, Kalidou Koulibaly jamono ji waa Napoli rek ñu ngi xamal li nga xamante ni mooy ñu jaay ko rek boo moytulee rek loo mën a nekk la défenseur international euh, sénégalais boobu yi nga xamante ni jamono ji dafa dese benn année rek te de contrat rek ak ñi nga xamante ni ñooy waa Napoli maanaam bu ñu xoolee rek de juin deux mille rek la euh, carrière am wala sax li nga xamante ni mooy euh, contrat ak euh, waa Napoli di jeex waaye nag ñi nga xamante ni ñoo yor ñoo ŋànk lii de football club bu Napoli ñoom nag wax nañ ñi nga xamante ni direction de Napoli ñoom nag wax nañ li nga xamante ni mooy jamono ji ñu ngi commencé di xalaat si avenir u yenn yi nekk foofii ca Napoli ndaxte ñoom rek ñu ngi di waxtaanee naan yan joueurs ñoo war a RC yan jour ñoo war a toog di nëggandiku uh, ci club boobu ak ñan ñoo war a dem ak ñan ñoo war a ñëw ñoom nag wax nañ si ki nga xamante ni mooy uh, Kalidou Koulibaly nee na nag naam sax ñu ngi négocier ngir mu amaat ak ñoom ak benn contrat te am na ay club yoo xamante ni ñu ngi fii ci biir uh, Europe di laajte Kalidou Koulibaly comme ku si mel ni ñi nga xamante ni ñooy FC Barcelone Xavi boobu nga xamante ni jamono ji mu ngi teg pression ñii di waa Barça ngir ñu mën a récupérer défenseur international sénégalais nekk fi champion d'Afrique jamono ji rek ñu génn kon nag bu ñu moytulee dara ñii di waa Napoli ñoom rek dinañ ñàkk li nga xamante ni mooy seen défenseur boo bi nga xamante ni jamono ji bokk na si défenseur yu gën a xarañ si monde bi moom Kalidou Koulibaly ñoom nag waa Napoli ñu ngi wax ni ki nga xamante ni mooy euh, Kalidou Koulibaly euh, ñu ngi négocier wala sax dàq ñu benn négociation ak euh, défenseur international sénégalais boobee ak beneen club boo xamante ni jamono ji sax Kalidou Koulibaly mu ngi am 30 ans waaye nag bu ñu gisee li nga xamante ni mooy 60 millions d'euros dinañ ko mën a jaay si képp koo xamante ni ab joueur nga waaye nag loolee sax lu ñu koy xamal mooy ñi direction. direction bu euh, Naples nee na nag mi nga xamante ni ñoom sax euh, ministre de la defence rek lañ koy woowee nee na nag mën nañ koo jaay bu fekkee gis nañ carrément xaalis boo xamante ni euh, doy na leen a sëkk ngir ñu mën a joxe kii di défenseur international sénégalais bii di wuyu si turu Kalidou Koulibaly